أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والجاه السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala di julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm waaye di sàkku ay ñaan ci yéen di leen baalu àq di leen baal xàq di ñaan yàlla suñ borom subhaanahu wa taala mu boole nu jéggal suñuy àq yi dox suñ digganteek moom ak suñuy moroomi jaam di fas yéene dellusiwaat ak yéen ci njëriñ yi ñu ànd ak yéen fii ci seen YouTube le grand secret en wolof di leen ñaan ngeen abonné ci suñu deuxième chaîne bi nga xam lien bi mi ngi ci description bi inshallah allahu taala di wax na tey nag incha dañoo ñëw ak njëriñ lu màgg njëriñ lu am solo loo xam ne lu mata xam la mbokk yi insha allah taala su ko defee kon moom ngeen di jàkkaar lool ni koo xam ne yàlla suñu borom dafa am dafa dogal koo xam ne yàlla dafa dogal mu am feebar bu nekk ci moom te feebar bi xamut kañ la ko dal ak fan la ko dalee wala sax xam na yan jamono la ko seetlu ci yaramam waaye xamul fan la ko dalee te xamul itam feebar bi feebaru lan la xamul feebar bi fan la ko dalee wala sax xam na ko waaye xamul feebar bi feebaru lan la xamul sax lan moo koy faj insha allah ñu fas yéene ñëw ak yéen rek ci loo xam ne bu soobe yàlla képp koo xam ne lu mel ni nekk na ci yow boo bindee aaya bi jëfandikoo ko ni nuñ koy bëgg a waxee ci kàttanu sun borom tabaaraka wa taala yàlla mën na laa saafaral tawat jooju insha allahu taala mi ngi noonu. faidatun lil istisfaa'i min maradin خطير مجهول إن مرض مرضا لا يعرف ولا يداوى فاكتب <coughs> فاكتب هذه الآية بدون عدد ويغتسل به ويسرب يصفى بإذن الله وهي رب أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين kon آية bi دي di gis mbokk yi benn aaya alquran masaniya durru wa anta arhamur rahimin moom la ñuy bind mi ngi nii ngeen di gis léeg-léeg nit léegi léeg dinañ joxe mbind mi ci texte bu leer nañ ñi won leen ko ci image bi nit woo la dina laaj fan la nekk su boobaa yow jarul laajte fa mu nekk ci alquran waaye boo ko bëggee jëfandikoo bul ko defal sa bopp xoolal ka ko xam te man ko mu defal la ko ndax loo xam ne dañ lay won mbind mi mu leer nañ masque yeeg lépp ñëw ba noppi nga gis ko di laajte fan la nekk yow mënuloo ko lay gën mooy nga xool ka ko mën mu defal la ko incha allah ndax loo xam ne moom dañ ko lu gàtt gàtt boo mënee liir rek dañ ko mën te boo mënta liir moom jaru ngay jéem a mën a jéem di di di bind ndax soo yàqee doo ko xam su dëngee doo ko xam kon ku ciy defal lenn sa bopp na fekk nga xam ko bu baax incha allah aaya baa ngi noonu ngeen di gis rab bi anee ma sanniya doru wa anta arhamar rahimin arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin soo koy bind nag amul ab bi dooni xadat lañ wax moom mën nga koo bind benn yoon mën nga koo bind ñaari yoon mën nga koo bind ñetti yoon mën nga koo bind lim bu la soob incha allahu taala su ko defee nag da nga koy xel di sangoo di ci naan di ci sangoo di ko naan di ci sangu di ci naan lépp loo xam ne nag bépp vidéo bu ñu joxee ci internet bi fii nii na leen dañ koy sangoo na ngeen xam ne du lu ñuy sangoo ci toilette du lu ñuy sangoo fu am sobe bépp vidéo boo xam ne alquran la lépp loo xam ne alquran la mbaa lu ko niru mbaa xasida mbaa tagg yonent bi mbaa julli ci yonent bi ñu bind ko loolu kenn du ko def ci sobe kenn du ko sangoo ci sobe sangoo ko ci sobe mi ngi mel ni nga dem jël mbind ma rek di ko dugal ci sobe wala iyaazu billah te loolu dara jaru ko kon yéen yi nga xam ne yéenay sangoo saafara yi da ko sangoo fu amul sobe bu dee ci teraas nga nekk wala ci étage bi ngeen mënee yéeg ca kaw a kaw bu guddee ba kenn ñëpp nelaw ngeen yéeg ca kaw a kaw wala ngeen sangoo ko ci seen biir di nekk nga xamante ne ni maanaam ñu bëri bu ñuy sangu saafara seen biir nekk lañ koy sangoo ndax saafara ndox mi ngay koy sangoo ndox mu yem lay doon du doon ndox mu bari mën nga koo def ci satala wala nga def ko ci ndab lu yem rek boo bindee saafara si ba pare nga jël ci toqal ko ci sotti ci tuuti rek <coughs> ba mu jaxasoo ak ndox mi <coughs> ngeen baal ma ba mu jaxasoo ak ndox mi rek nga jël ko sangoo ko waaye saafara kenn du ko sangoo fa am fu fu fu ci ci ay toilettes ndax li ko waral mooy alquran la ba dee li ma leen di jox alquran la alquran nag xam ngeen ni mu mel. kon loolu tam ñi koy jëfandikoo mën nañ koo ba mat nañ koo bàyyi xel waaye ñun ñi koy joxe tam lu am solo la ñu di ko leeral kon bépp vidéo boo xam ne joxe nañ ko fi rek ne dañ koy sangoo deesu ko ci sangoo ci toilette ci gàttal ñu jox leen dig daje ba ëllëg ci beneen vidéo te di leen ñaan ngeen di am vidéo yi tey partage vidéo yi incha allah te te abonné ci suñu deuxième chaîne bi nga xam ne mooy le grand secret xam-xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu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 soko bëssé nga ya. gis ya, mu bindal la abonné nga daal di dem fi ci notification bi fété ya, sa ndé ndeyjoor nga bëss tous notification bi jallé ci kaw fi ñu bind tu nga bëss ko inshallah so paré itam ñi ngi lay ñaan nga aimé vidéo bi ndax lo leen gëna aimé vidéo yi rek ñu leen di gëna andi ay vidéo yu gëna am solo ak ay secret yu gëna kémané kéemaane su ngeen paree itam ñu ngi leen di ñaan ngeen bés bu taw rejoindre bi nga xamante ne moom itam bu am solo la mën a def seen inscription ci seen bi incha allahu taala asalaamualeykum wa rahmatullah